di rafetlu teewaay bi ngeen ñëwoon fi tey pour interview ci euh, santé de la reproduction particulièrement ci infection sexuellement transmissible waaw tey ñu bëgg a laaj mhm. tey lan lan mooy santé de la reproduction IST ak lan moo différencier IST ak MST santé de la reproduction moom mooy lépp loo xamante ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax ci diggante euh, affaireu jigéen affaireu jigéen maanaam moom mm-hmm. mooy santé de la reproduction lu ci jigéen bi mu juddoo ba bi muy bi mu tollee ci âge puberté ba bi muy toll ci âge yu jur wasin buñ euh, koy waxee âge am doom comme jigéen ñëpp ñu koy ñaanee mhm. léegi bu boo ma ci IST ak MST mhm. IST comme ni ñu koy waxee mooy infection sexuellement transmissible mhm. alors que MST c'est une maladie maladie sexuellement transmissible IST mën na la dal ngay demaale ak moom te doo sentir dara mën naa microbe bi mi si yow mais doo doo doo doo sentir ni dara mi ngi ci yow alors que maladie sexuellement transmissible c'est une maladie on peut en citer benn comme mm-hmm. le sida c'est une maladie sexuellement transmissible différence boobu daal laa la si mën a waxal pour l'instant ok yan type de euh, IST ñoo am yan type de IST waaw IST yi ñu am mbari na am nañu IST avec écoulement amna amna IST am écoulement comme am ay blanche mhm. la tamit day am luy ci sa kanam mhm. luy ci sa mhm. avec écoulement <coughs> amna tamit IST avec ulcération IST avec day def genre euh, euh gomme la ko waxé ci sexe day day day day day xoosu xoosu buy am ci sa sexe la boo ko boo ko consulter tu da ngay gis usération bi carrément nga xam ne lii IST e avec ulcération la du am sax écoulement du ànd ak mhm. dara mais sa kanam day day day day xoosu mhm. bu dee ku góor ki la comme bu dee ku jigéen ki tamit noonu la koy noonu lay manifester woo ci moom mhm. ñaari type yooyu am na am na tamit douleur abdominale basse <coughs> ab deminal basse day dal jigéen en général moom lay dal benn kii la boo xamante ni inflammation la buy am ci sa naq mhm. ci sa naq sa suufu nag mhm. foofu lay lay lay manifesté lu metti la nag quand même koy gis bariwul mais dafa metti infection bi bu demee ba tollu foofu day metti lool moom la ñuy wax <coughs> infection moom la ñuy wax douleur abdominale basse mhm. ñetti forme IST yooyu la ñu xam. ñoo am ok yan ñooy signes yi yan signe moo la mun a wan ne kii dafa yore IST. ok signe yi wane ne nit ki am na IST bari na parfois li gën a euh, tax famille di ñëw consultation sax mhm. mooy prurit bi mooy xasan bi buy mhm. xasan parfois ñu ci bëri ñu ñëw consultation loolu moo leen di andi mhm. mais avant muy stade xasan am na yeneen signe mën na la def écoulement di nga sa kanam di tooy foo toll di génne ay perte blanche perte blanche sax gaar jigéen moom ak carte blanche ñoo ànd parce que jigéen ju nekk da ngay am carte blanche mhm. mais su demee ba commencé muy am xet wala mu changer couleur. Mm-hmm. wala mu commencer di xasan sa kanam. la bobu mën nañ ne ci signe infection yi la bokk. Mm-hmm. manam prurite bi dal mo ci gëna feus mm-hmm. dal ci infection. moy tax sax ñu bari di ñëw consultation. wa légui nak prurite bobu nga waxatu bobu nga koy wokk nag. parfois moy dem ba indi ulcération. parce que boko day dee wokk bu yàggee day dagg. te bu daggee moy indi ulcération bobu non di faral tax femme yi di consulter wu bari lu bari non waaw saw mu bari walla ak euh, mm, nu tudd euh, lii muy am ngay am caqar yooyu tam ci ci signes yi la bokk. voilà loolu signe maanaam signes yi ma la fi wax lii. c'est les mhm. premiers signes. Mhm. signes yooyu soo ko yëgee soo teelee dem dispen consultation. mën na bañ a yegg ci stade boobu mën na bañ a yegg si ci stade boobu. saw bu bari bi xam nga euh, en général jigéen sawukaayam ak sëyukaayam dañoo xaw a jege. Mm-hmm. su infection amee ci sëyukaay bi rek mën na mm-hmm. yéeg ci sawukaay bi. Mm-hmm. te bu fekkee yéeg na ci sawukaay bi mooy ci méa urinaire bi. mën na dem ba di def infection urinaire. ànd ak te infection urinaire mën na la di def ngay mu la yebal ngay tuur ndox lu bari. bu pare booy tuur ndox muy metti bu yàggee boo ko traité wu mën na dem ba booy tuur ndox muy ànd ak deret. voilà loolu la. Euh, maanaam mooy saignement irrégulier xaw ma naka. ni ñu koy waxee non non kii la ni ñu koy waxee booy tuur ndox. muy ànd ak deret muy ànd ak deret muy ak deret waaw. bokkut ak bokkut ak saignement bi am. ci ci vagin parce que fi ngay sa sëyee ak fi ngay sawee du ñu benn. Mm-hmm. sang bi du jóge ci sëyukaay bi mais ci sawukaay bi lay jóge mm-hmm. en général ñi ñëw di consulter wu. da ngay gis ne dañ naan la bu ñuy saw bay jeexal si la si la si la deret bi di ñëw. le plus souvent sont consulter soo xoolee da nga gis ni sang bi réellement jógewu ci mhm. vagin bi mais qui mais à urinaire bi lay jógee waa signes yi semaine la mun a nekk sa euh, kii sa sa sa yaram sa bire euh, vagin maanaam bu dee jigéen maanaam yow infection mën nga ko mhm. am sax sans pour autant nga xam ne am nga ko mhm. su signe manifeste manifesté woo rek fekk na yag mën na am yàgg na sa yaram parce que le plus souvent dangay gis euh, benn femme nous consulte wu pour infection sexuellement transmissible mhm. les yow da nga koy traité mhm. mais soo ko traité ils ko mu dem mhm. alors que peut-être mi ngi vivre ci benn famille polygame jëkkëram mi ngi fa wujjëm mi fa peut-être ñaari wujjëm ñi ngi fa xam nga ñooñu ñëwuñu consulté wu pour une infection alors que am nañ infection parce que soo traité femme bi nga gis rek nga traité ko moom mu dem elle revient avec les mêmes signes mën na taneen mais elle revient elle va revenir avec les mêmes signes parce que bu demee sëyaat mhm. day dikkaat parce que maanaam ku góor ki mooy doon vecteur bi mhm. mooy dem ci ci jabaram mhm. ñetti jabaram yëpp par exemple si su fekkee ñetti jabar lañ mooy dem ci kii mooy dem ci kii mooy dem ci kii mooy jëlee microbe ci kii yóbbu ko ci kii jëlee microbe ci kii yóbbu ko ci kii le de ce boo traité ki ngay gis rek yow mën nga traité mais da ngay échouer tamit tout tout temps femme bi da lay revenir avec les mêmes si Euh, su fekkee da waxtaan nga ak moom nga mhm. def traitement couple bi yëpp mhm. après signe day disparaître mhm. mais signe moom quand même mën nañ nekk ci sa yaram te doo ko sentir da ngay am problème sax pour traiter leen parce que boo ñëwee jox leen garab dañ naan la man feebaruma feebaruma waaw parce que man yëguma dara sama yaram alors que feebar baa ngi feebar nañ ndax euh, ñoom ñëpp ñooy partagé benn jëkkër ji ok kon ñoom ñëpp daal ñoo war a faju ñoom ñëpp jëkkër ji ak trois femmes yëpp war nañoo dem ku nekkee quatre tamit quatre yëpp war ok bu fekkee ne tamit ki nga xam ne dafa dem maanaam infidèle daal. waaw <laughs> tamit ko mun a waxee xam tamit mooy gën a metti. parce que ki nga xamante ni ñi muy partagé. ñi ci mhm. kër gi mën nga waxtaan ak ñoom. ba mhm. convaincre leen ñu faju mhm. alors que ki nga xamante ni dafa infidèle moom. dafay naqaree gérer. parce que euh, moom du la wax ne eh, il infidèle. yow da ngay mais tu tu vois que femme bi chaque fois day revenir. avec les mêmes signes mais doo doo mën a kii da def sa. da ngay da ngay def sa waxtaan ak moom rek di ko gën a ñaax ci mhm. muy def hygiène bi ak mhm. di traité wu heure bu si ñu ñëwee rek mais loolu moom dina naqaree saafara moom waaw wala foofu tam mun na utiliser préservatif wala ah parce que xam nga tamit góor ñu bëri mhm. bu dee seen soxna la duñu nangu utiliser préservatif loolu moom góor ñu bëri duñu duñu nangu utiliser préservatif ak seen soxna. waaye mun nañ ko utiliser ak seen. ak seen copine waaw bu nekk seen copine la. dinañ ko nangu mais le plus souvent doo. Mhm. fii bu dee fii la doo faral di gis góor ñi. Mhm. jigéen ñi ngay faral di. gis góor ko mhm. jigéen ñi bu fekkee dañoo seen jëkkër yi ñoo infidèle tamit day jafe pour nga lii leen. léegi gis na euh, lii di. slipu nylon dañuy faral damay faral di dégg ne nylon yi ñuy utiliser ak euh, savon euh, hydroalcoolique yi xawma ah, yoy ah. non ñi def ci kanamu jigen dégg na tamit baaxul dafay indi euh, li di <laughs> nu mu infection voilà comme ni nga ko non amna parce que tamit ki nylon yi dañ koy faral di di di conseiller femmes yi mm-hmm. ñu koy waxee sous-vêtements eu yu yu nylon yi. dañ koy mhm. faral di família femmes yi. Mhm. di leen não gën a ñaax ñu porque coton bi. parce que mhm. coton bi boo ko utiliser boo paree di nga ko mën a bu yàggee di nga ko mën a fóot eau de javel me wala nga wala nga paase ko. te nylon mënoo ko paase. bu nekkee coton la nag di nga mën a eau de javel di nga mën a séché à. ci soleil bi parce que dañ leen koy conseillé dafa bokk ci conseil yi ñu leen di conseillé ci traitement bi mhm. Mhm. di leen di wax ne fóot seen kii yi souvenement yi bu baax ba mhm. pare di ko weer si naaj parce que ak rayon ultraviolet yi mën na mën na mën na lu rey lu baax bari si microbe yi su fekkee fi nga dëkk amul naaj parce que am na kër yoo xam ne doo gis naaj dañ leen di wax ñu koy dajale bu mu bari ñu repassé ko pour mën a ci lutter contre microbe yooyu noonu ok léegi euh, ji am na ñoo xam ne tamit par exemple ñi nga xam ne euh, seen double WC yi ci suuf la nekk. Mhm. dañ naan parfois booy comme par exemple jigéen. Mhm. booy tuur ndox. Mhm. lii bi lii bi di tis sa kaw. sa sa sa sexe. bu ciy tis boobu tamit dafay faral di indi lii. IST e infection waaw li koy indi yëpp bari na parce que jigéen ni ko yàlla bindee kanam mhm. jigéen ni ko yàlla bindee dafa xaw a làkku mhm. li koy laal parfois su même chaise anglaise yi tamit bu fekkee yow yow du kese yow yow kese yaa koy utiliser kenn mën na ko utiliser bàyyi fa germe parce que germe dafa sob dafa ñëw boo ñëwee toog mën na la toppee foofu mhm. maanaam ma mën la wax ne du infection sexuellement transmissible ci ci sëy rek lay ok ko jëlee feneen fu du ci sëy voilà parce day dal jeune yi nga xam ne amuñ jëkkër dara da leen di daal mhm. voilà parce que kanam jigéen ni mu ni mu ni mu bindoo la daal waaw waaw mhm, ni mu bindoo fekkee góor moom góor nu mu ko mun a duggee ah, mais góor moom en général euh, euh, ci ci sëy lañ koy mën di jëlee ci sëy rek ci lañ koy mën di jëlee mhm. nga euh, góor moom ni ko yàlla bindee dafa direct ni mu ko bindee noonu daanaka si sëy rek nga ko mën a jëlee te parfois sax mën nga sëy doo ko si am parce que mhm. góor wàll jigéen infection moo gën a yomb ko te jigéen wàllu góor infection parce ni mu bindoo la même même même si kaawu euh, maladie sexuellement transmissible le sida mhm. parfois day am couple yoo xamante ne ku jigéen ki day am te ku góor ki du am parce que jigéen ñi ko yàlla bindee bindee la voilà yan conséquence moo la mën a fekk ci euh, yooyu noonu yan conséquence nga si mën a jëlee. ci infection infection. waaw infection conséquence, yi bari mhm. parce que bu fekkee yaa ngi koy am te traité woo ko. Mhm. en étant jeune fille. mën mhm. nga dem ba sëy. bëgg am doom mu mu mu fatt sa trompe de de de de kii fi nga fi fi nen bi wara jaar. pour mëna fécondé pour mëna a pour nga mëna a gis spermatozoïde bi fécondé ko papa mëna boucher. boucher boucher trompe yi mën na boucher su parce que la plupart des des des des qui <clears throat> infécondité yi am. Mhm. infertilité yi. Mhm. plus souvent que presque 50% pour cent yi infection la. Mhm. bo traité infection rek ça marche parce que l'infection, bi la première chose bi muy def jigen loolu la mën la ko euh, tax mu stérile. stérile <clears throat> ok stérile manam jassir ok manam jassir ci góor ak jigen ni mu dalee mën a dalee góor la mën a dalee jigéen ok lii bon damay dégg tamit faral di dégg ñu naan porte d'entrée la ci sida porte d'entrée la ok euh, mhm. grossesse tamit extra utérine maanaam fausse couche mhm. noonu la <coughs> ak les avortements. Mhm. avortement yi mooy fausse couche infection da def. ok infection moom ay ay ay kiyam bari na mhm. maanaam. Euh, conséquence yi mën a àndi bari na mhm. comme ni nga ko waxee noonu ni ma la waxee ni la bu dee ku jigéen ki lay dal moom avant muy sëy bu demee ba sëy mën na ko tere mu mu am doom bu demee ba sëy tamit mën na ko def avortement mën na ko def avortement surtout bu fekkee ëmb bi demagul fenn bu fekkee yaa ngi traîner infection mën na la dindil avortement soo demee ba grossesse bi avancé tamit mhm. ngay ànd ak infection infection bi mën na dem ba lor xale bi si biir bi moom la ñuy wax <clears throat> retan kii morne in utero mën na ko indi mhm. RAN yi en général mooy rétention d'œuf moelle yi lu ci bëri infection da koy andi est-ce que mën na indi tamit cancer du col de l'utérus wala cancer du col de l'utérus mm. infection la mm, bu yàgg. la. voilà infection boo xamante ne yaa ngi ko doon traité moo tax ñuy bëgg à chaque fois boo amee infection nga koy traité. Mm-hmm. parce mm-hmm. euh, bi am nga col bi. waaw <coughs> lay fa lay cancer bi di commencé moo tax ñu koy wax cancer du col bi. Mm-hmm. fa la infection foofu lay attaqué di ko attaqué bu à force que nga koy bañ a traité day dem ba day day day egg ci stade boo xamante ni mën na dem stade. cancer. ok yan prévention lañ mun a def euh, ci yees. infection waaw prévention bi ñuy favoriser ci infection. Mhm. première chose mooy hygiène bi <clears throat> hygiène bi en général bu ñu ñëwee ci lañ leen di gën a euh, ci lañ di gën a euh, conseiller. Mhm. ñuy maanaam ñuy utiliser serviette hygiénique yi serviette hygiénique yi ñuy mhm. utiliser. ñuy bañ di jël benn comme par exemple période règle nga jël serviette hygiénique mm serviette toute une longueur de journée, parce que ça favorise l'infection. Ok. Bon, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures maximum, on va changer. Changer. ou 2 3 4 par fois jour. par jour. Ok. c'est nous sommes beaucoup de gens, nous respectons les règles d'hygiène. Mm-hmm. Euh, règles d'hygiène, bien sûr. Mm-hmm. Hygiène, bien sûr. Nous en général. Ok. Mm-hmm. fekkente ne ñi nga xamante ni tamit ñi ngi sëy te nekkuñu ci bu mhm. bu ñuy sëy ñuy utiliser préservatif préservatif tamit mooy mooy prévention bi gën a kii ci en général ñi nga xamante ni abstenir wuñu daal abstinence mooy mooy première kii mooy <laughs> premier. ok ci ki nga xamante ne sëyagut sëyagut voilà abstinence ci ki nga xamante ne sëyagut mais mhm. ki nga xamante ne sëy na nag moom doo ko ni abstenir doo ko ni utiliser préservatif parce que du mhm. góor ñëpp ñoo koy nangu mais mhm. hygiène bi daal ñu gën ci veiller bu jeune fille yi nag moom abstinence moom à défaut ñu mën a abstenir ñuy utiliser préservatif dina leen dimbali si préservatif dina leen dimbali si infection yi infection yi Euh, wala nga fidèle ak sa partenaire. <laughs> être fidèle à son partenaire. waaw fidèle à son partenaire tamit en quelque sorte tamit baax na si mais tamit xam nga ki nga xamante ni euh, déjà moom yemul ci kenn. Mm-hmm. kooku moo gën a mën a am infection. infection bi nga xamante ni yem na si benn partenaire. ok ah, dee yem nga sa partenaire peut fekkee ki sa partenaire fidèle la mhm. soo amee infection suñ lay traité dinañ mëna xam fan ngay fan fan ngay rompre cercle bi cercle parce que cercle la mhm. da ngay rompre cercle bi pour infection bi mëna arrêter mais bu fekkee xamoo ki nga kan ngay traité do mëna rompre cercle bi day continuer rek di am infection infection ba da fay na rek mhm. ok wala utiliser euh, ci rapport sexuel occasionnel ñi utiliser préservatif boobu. voilà <laughs> mooy li ma wax rek mooy préservatif yi rek <laughs> déjà <laughs> à force a mm-hmm. mm-hmm. préservatif mooy rapport sexuel protégé rek. Mm-hmm. Eh, lan nga ñuy ñaaxal sunu mbokk jigéen ñi nga xam ne xama xama IST léegi dañ ko def eh, li tabu sujet tabu te eh, sunu mbokku jigéen dañ war dem ci poste de santé yi di ñëw ci yéen yéen sage-femme yi. Mhm. ñuy wax ak yéen. ngeen di leen di conseiller. Mhm. waaye dañoo dañuy am kersa. ñu ci bëri dañuy am kersa pour def loolu. te du yoon lan nga leen di ñaax lan nga leen di wax. waaw dëgg la comme ni nga ko waxee eh, xam nga mbirum sexe moom dafa nekk un sujet tabou. pour nga mhm. wax ci sax da ngay gis ne dañuy am kersa. jigéen ñi sëy sax pour nga waxtaan ak ñoom seen mbiru sëy da da leen da leen di def kersa ci ñoom. moo tax le plus souvent dañuy nëbbatu. bu ñu amee infection sax balaa ñuy. consulté wu dañuy mm-hmm. ñëw tardivement dañuy ñëw tardivement wala peut bu fekkee produit yi comme neexutal mu ñaale bu la dalee ngay ñëw consulté wu su dul mm-hmm. loolu mën nga yor infection traîner ko des des mois et des mois mais li ma mm-hmm. leen di ñaax mooy ñu xam ni sexe du tabu lépp loo gis ci sa yaram nga xam ne daaw ko daawoo ko tàmm di gis ci sa yaram nga teel a dem consulter wu sage yaa ngi fi infirmier yaa ngi fi gynécologue yaa ngi fi foo dem boo jàmbatee sa soxla dinañ la consulter dinañ la defal li ci war hein bu ko defee lépp lo doon jambat ci sa yaram dañ ciy gis wér bi taw infection moom mhm. bo ñëwee buñ la traité 2 à 3 jours rek da ngay daal di si ñi nga doon yëg yëpp doo ci yëg dara da ngay da ngay da ngay jàpp ni sax tane nga mhm. alors que da nga normalement da nga wara continuer traitement bi nak durée bi de 7 à 14 jours la durée bi 7 à 14 jours la am na ci yo xamanteni antibiotique yo xam ne dem ba mais ak ak ak évolution science bi parfois mhm. léegi dañuy wàññi durée bi parce que femme bi lu durée bi gën a gudd muy gën a négliger traitement yi mhm. mais da nga ci gis ñoo xamante ne léegi dañuy revenir antibiotiques yi trois trois jours rek mhm. traitement bi pare am na ci ñoo xamante ne dañuy dem ba comme sant day évoluer am na ñoo xam traitement bi benn yoon rek la prise unique la da ngay jël après nga tàggoog say signes te dina la defal protection bu yàgg voilà

lu si bëri góor ñi jigéen ñi ngay gis. Mhm. soo leen gisee. Mhm. nga xam ne ñoom dañu war a traité wu. nga mhm. bindal leen ordonnance ordonnance yooyu da leen koy yóbbante. parfois dina am ñu nangoo jël dina am ñoo xam ne duñ sax nangoo jël. parce que dañu naan dara jotuma. dara jotuma dañu naan parce que santé bi benn si. da nga gis góor boo xam si da ngay dem ci moom ne ko euh, gynéco bi nee na sama sage-femme bi nee na. naa def li naa jël li nanga ñëw ñu traité wu ñaar waaye du ñu nangu. du ñu nangu. dañ war a dem ñoom tamit waxal ci góor ñi ne leen na ñoom it nañuy dem. waaw góor ñi tamit maa ngi di ñaax ñoom tamit ñuy ñëw. di mhm. ñëw di consulter wu parce que tamit infection ni muy dalee jigéen noonu lay dalee góor. Mhm. waaw te ni mu mën a euh, téye téye jigéen mu bañ am doom noonu la mën a téye góor mu bañ am doom. Mhm. kon nag kon muy góor que muy jigéen ñëpp nañuy ñëw ci service service yi di consulter wu pour infection bu fekkente ne ñu ngi yëg ci seen yaram. waaw euh, madame Mbaye sa dernier moo ci émission bi. waaw sama dernier mot moom maa ngi leen di remercier bu baax parce que da ngeen na ñëw ci thème boo xamante ni thème d'actualité la parce que dañ koy dañ koy dund chaque jour daal loo xam ne dañ koy dund chaque jour la ndax doo xëy suba ba ngoon di consulter. Mm-hmm. te traité woo fi infection. Mm-hmm. xëy na peut ay sax laay wax. ay mm-hmm. infection da xëy suba ba ngoon te amaana ñi nekk ci kër yi ñoo ëpp. comme ni ngeen ñëwee nii ñu koy seetaan ñi nga xamante ne par mois voie ñu xam ne infection du lu ñuy nëbb bu la mhm. dalee du du lu ruslu tamit bu la dalee comme ni muy dalee ñëpp bu la dalee nga dem di hôpital nga mhm. nga nga consulté wu mu jeex jeune fi yi en général tamit dañuy am problème pour consulter wu pour une infection ñoom tamit dañ koy traîner lu yàgg duñu dem alors que xëy peut-être dañuy ragal dem ñu naan gis nañ ko ci sage-femme bi. Mhm. gis nañ ko ci kii bi waaye ñu xam ne centre conseil ado yaa ngi fi. Mhm. bu fekkente ne am nga problème yu mel noonu soo ragalee dem hôpital. Mhm. ñu dafay gis naan ne gis nañ ko ci rangu sage-femme bi. rangu yi xam nga c'est pas facile. c'est pas facile ah, ñu xam ni centre yooyu am na. sage-femme yi tamit sont tellement disponibles. bu fekkente ne genre yooyu am na am na ay heures yoo xamante ne c'est réservé à ces genres de de qui euh, jeunes yo yi nga xamante dañuy soxla consultation soxla conseil par rapport à seen santé de la reproduction ok euh, merci beaucoup chers téléspectateurs yi safoo seetaan Saloum Actu tey ñu ngi woon fii ci jaxaay gis ngeen ko ñoo ko déggandoo xanaa rek di jaajëfal madame Mbaye mi nga xam ne moom lañ fekk fii ci jaxaay de kontaan trop ci dalal bi nga xam ne dalal nañu ko fii ci biir kër gi am mbégte bu mag a mag a mag a mag a mag jàkkaarloog moom euh, kon euh, kon nag ñu ngi leen di jaajëfal lu bëree bëri di jaajëfal sama cameraman Mouhamed Rachid di jaajëfal mami Barham mi ma àndal euh, cant ak ngërëm ñeel na leen ci liggéey bu mucc ayib boobu ok bye bye ci beneen émission